sunu yaakaar sunu wasiila tey ak kooku mooy Makhtar Deris Ibrahima lu ma mën si maçon kii la bàcc mbuub la lu ma mën si maçon maa ngi moom depuis gànnaar la woon ba fii ni 2003 dara ma see ñaanal ñu yàlla ñaanal ñu yàlla ñaanal ñu yàlla diggante bi yàlla sàmmal ñu ko ba yomal xiyaamat gàmm gi nag tey la Sénégal yéen ñëpp woo leen woo sunu président Macky Sall woo si sunu yaay Marème fay Sall woo gouvernement bi ñëpp ñëw leen si gàmmu Cheikh Ibrahima bii muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi gi nag ñu tuddee ko ku jar muy xaritam di turandoom di yaakaaram léppam muy yonent yàlla Ibrahima ku bëgg a xam gàmm gi kuy yonent yàlla Ibrahima kuy xam kuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwal gàmm ga di nga xam kuy yonent yàlla Ibrahima di nga xam kan mooy Haajara kon daal Ibrahima ña ngay xaar incha allahu rabbi Eh, waay dem Samba waay jërëjëf man ba ma ko doon jox sama loxo di kuuñ kon dina kuuñ bu yàgg